dina ci yéen julit ñi seen seen aljana li koy jënde moy seeni alal ak seeni bakkan fofu dafa dal di wax bu wér lay may aljana amna leneen nit lu ne ci alquran lo xamne sunu borom wax na ne dana may aljana moy nga fekk nitug yàlla kuy liggéeyal yàlla yalla am lu mënta leral ci bopam ndax bopam da koy jege nga jóge fële ci àll ba te moy Cheikh ibrahim rajulun min aqsal madinati ben way bu jógee ci àll ba mooy Cheikh ibrahim jóge fële dikk ñu umpale sëñ Touba lool te ko wax boppam mu ne kii kenn warut a toog ak moom kii lees liggéey des ko koo war a jox kii ku ne dalaa war a gënal sa bopp loolee ka ko waxoon ci Sayyiduna Muusa bañ ko ñettamalee benn waaye jóge fële ne leen da ngeen war a déglu li muy wax li muy wax njëriñam nekku ci benn intérêt nekku ci te itam da ngeen a war mu leen wax ngeen gëm ko su fekkee wax na dëgg mu leen dig da ko gis su fekkee ne dafa fenit fen wa du leen wàññi dara moog moom moog moom loolee la ko ci yàlla fa da ko ne demal tàbbi àjjana moo tax waa ji ne yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramina jéggalewu ko ay julli jéggalewu ko leneen da ko jéggale leeral mbirub nit ku baax sunna bi muy wax itam li gën a wér ci sunna yonent bi mooy yi may bëgg a lim am na woykat wu tënk li yonent bi daa def def ne xalaba xandaqa bana wasalaxa raqaa xaata xamma baytan baxbaxa yii yëpp yonent bi def na ko te gisaguma kenn ku bëgg a doxal sunna ba jóg jéem caa roy dara yonent bi rattaan na ay gat gasaan na ay pax tabaxaan na feesaan na ay gat daax na ay sér ñaw na ay sér bale na ay ay kër naax na ay doom lu ci ne métier woon na ko ñu daa ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg a dundal sunna ba tax nga ne loola laa ko yaa ngi koy def dund lim dundoon ci ay at it kenn néewul yàlla may ma ma dund lu lu lu lu toll ne lim dundoon ndax ku ne xeeb nga ak dundam kon roy sunna moom lu ñuy wax la waaye euh, euh, euh, ku ko doon roy roy ko ci métier roy ko ca ca lam dundoon ci àddina te gisaguma ko ne yow sama borom maa ngi la ñaan bu ma dund lu yonent bi dundoon loolu moo wér waaw kon noo ngi sant sëriñ Touba moom gindi nañu teg nañu ci yoon tegtalu nu da def ne dugg leen ma yóbbu leen Serigne Touba di su ko rey di su ko topp dangay dugg ci li mu ne mu yóbbaale la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Serigne bi dama lay nuyu di la ziyaara ziyaara boobu ak nuyoo boobu ma jaarale ko ci yow mu jàll ba ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama waajur wu tedd woowu di sëriñ Mouhamadul Fadil di ci ziyaara di ci nuyu mboolem taalibay murid yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañu fii bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moo ko war a tënk moo di bis bi di kasu rajab ak boroom bis bi di sëriñ fadlullahi fadlullahi dafa rëy ndax alquran lu ne da koo wax lu ne mu digle ko lu ne mu tere ko lu ne mu dige ko waaye dafa mujj wax ne li am njëriñ addina ak alaxira moo di fadlullahi wa rahmatuhu qul qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax sunu waajur wu tedd bi bi mu feeñee ñii takki gàllaaj ñi di ñaan sëriñ bi ne déedéet wa anna al fadla bi yadillahi yuutihi man yasha kenn du ko takkal téeg yàlla moo ko yorul boppam kon loolu dafa mat a xam loolu jeexital ci jëmmam ju tedd ja léppam di fadlullahi wa rahmatuhu du ma ci delluwaat ndax ñu weesu ñëpp wax nañ ko léppam di ngëneel léppam di yërmande loolu mooy biddam mooy tabiatum sëriñ tuba it tànn ko mu feeñ ci weer yii nga xam ne sëriñ tuba nee na kasu rajab din akramani kasu rajab daf maa teral mu wax ci lu bari kasu rajab nee na ci lañ ko maye alquran te sëriñ tuba nee na alquran moo koy gunge ba àjjana ne Serigne nee na ko yow téerab yàlla bi ñu ma may ci kasu rajab yow yaay sama docteur docteur du ma faj nee na ko teral nga ma musal nga ma bégal nga ma wattu nga ma aar nga ma wax na ne it ci kasu rajab ji ak ci màggug alxuraan bi nga ko ci may sunu boroom may na ko ci ak def Serigne Touba dootu fi jógati wajaalna zurriyatahu humul baaqina loolu yàgg na fi waaye moo ko mujje Sëriñ Tuubaa wax ne danañu dem ba jamono fépp takk waaye Tuubaa du takk <coughs> li may wax histoire da ko dëggal at yële ñu weesu am na ay jiit yori ngànnaay nangu kaaba gi lu yàgg te ñimitu raaj waxtu yii may wax ak yéen baytul muqaddas gii waxtaane la fa xew ñu jëmp ko yëgandoo fi ñu tàkk na bërëbu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ci bokkut te sëñ Tuubaa moo ne wa zid rawdatihi mm-hmm. dafa ñaan ne sunu borom yal na nga wattu bërëbu yonent bi mm-hmm. loolaa ko lu wér laa xam ci li may wax kon nag ñu sant yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax gërëm Serigne Touba ci lii nga xam ne defal nañu kon nag waxtaan ci sunu waajuru tedd yi di Serigne Fadlullahi mu koo jeexal ñoo ngi dellu di la ziyaara di la nuyu di ziyaara sunu bokk yépp di nuyu bokki jullit yëpp ak mboolem ñi teew wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Cheikh sama xarit sama mbokk ci ndey sama mbokk ci baay di sama xarit boo xam ne li des ci sama dund su ma la dee jéem a fay li nga ma euh, jiit ci teraanga duma ko mën xarit gu yàgg laa am ak yow booba maa ngi nekk njaareem di go di ay ñu di gone lu ma masaa xew la yaa fay jëkk mujj fa bi nga nekkee Touba loo masaa xewle maa fay jëkk mujj fa waaye yaa ma gën ndax yow boo masaa ñëw ci sama xew man damay lijjanti sama xew yow nag danga ma naan lijjantil ma xew li yaa ma gën ndax Moustapha Salih mi ngi dagu ci sa ëtt te Cheikh Mbakim sëñ Sooñ bu daguwul ci sama ëtt maye naa say doom ba tey ba yóbbu leen fa ma leen yóbbu soog laa yëgal ñama ko may nga far ma ne dell ma ne ñëpp kon mënuma laa fay waaye sunu waajur wu tedd ba nga ko niru mënuma waxtaan ci moom moo tax ren laa jëkk a waxtaan ci bisam ndax mënuma ko moom dama koy dund dama koo xam moom mooy Serigne Touba doonul sëriñ Touba dafa doon Serigne Touba sëñ Tuubaa da koo téye waxtu suba ba nodduk tisbaar sotti ko ci kawam lépp sëñ tubaa ko ko xamal te booba dëlagut jàng daf koo téye lam ko jëkk defal mooy tàngalal ko attaaye mu naan mu ne ko xam nga lu ma ci jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko dama bëgg nga xam tiraanga lu ne catti na ko sëñ tubaa bi su keroog won na ko lépp won na ko ni muy binde won ko ni muy jàngee alxuraan sëñ Issa na sax ñëw nañ yëgal ko sëñ Touba mu ne na agsi sëñ Souhaï bu xam ni na ko te booba dellugu jàng mu nekk ak moom ba yàgg mu ne ko demal foofu kees gee fekk ay xalima ak i daa ñoo ca nekk sëñ Souhaï bu jóg jënt ca fab ko sëñ Touba ne ko tegaatal fi suuf mu teg ko fi suuf mu ne ko deel wax bisimilah yi soog di fab te booy tàggati dara deel wax bisimilah yi mu fab ko topp ci moom sëñ Touba di dem. di waaxu sëñ sooy bu di dox jéego yu xat sëñ Tuubaa raw ko mu réer ci biir kees yi sëñ bi dëppaat gis ko na ko waaxu si mu topp ci moom ñuy dem ba ci néeg sëñ bi toog ne ko teg fi mu teg mu ne ko ñëw ma la woon looy waxati dee la wax bisimilah fobal mu yëkkati mu ne ko waxal bisimilah mu ne bisimilah mu teg moom moom te lu mu ko wax da koy da koy wax dénk ko dénk ko sëñ Tuubaa du wax dégg nga dénk ko lay wax yooyu yëpp mu fàttali ko ci sëñ diko diko diko xam waxtu yi ñu ñëw señ isa genn señ soy bu neena mi ngi laxasu ci gannaaw serigne bi di fa ci gannaawam am na ñoo xam ne serigne touba dana ñii sama doom lañ señ soy bu nag moom dana kii sama baye mu wax ne am na fu serigne bi toogee di bind muy xool cëri serigne bi neena mu rafet ci moom lool sam serigne bi ba gisatu tànk serigne bi muy koo xam ne yontu yàlla Souhaïbou mi ko Serigne Touba tudde Serigne Touba lu mu def du neen moo tax bu tax si Serigne Souhaïbou wala tahsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaata mi ngi dund dund Seydina Souhaïbou dafa am lu ko tax a dem dafa am lu mu bañ a fekke mu dem loolu am loolu nag Serigne Touba moo ni mel damay jaaxal bu fekkee ne nangu nañ ku la jàngal école ku ne nga ne sama sëriñ ku la faj ku ne nga ne moo ma mën a moo ma may ak wér ku la jàngal métier ku ne nga ne moo ma xeet te nag bu ne sëñ Touba yàlla sëñ Touba ñu ne danoo bokkali bokkaliwul sëñ Touba tawxiid la jëkk a def ci ñun tarbiyatu mooy fi ñuy jàngale nit imaanu billaah loolu la jëkk a def ci ñun mu wëlbatiku tarqiyanu mooy fi ñuy defee ci nit lislaam moo xam na muy jàmmoo yàlla mu la def ci ñun lixsaan ndax boo gëmee yàlla di jàmm yàlla te ngistal tax ak bëgg dina yàlla du ko nangu mu defar nu ba nga xam ne loolu def yàllaa tax kon noonu ay muminuuna muslimuuna muxsinuuna lanu dunu ay musrikuuna waaye nag yàlla diw moom mi ngi ci alxuraan ndax sunu borom moo wax ci alxuraan ne su ngeen doon wax ne li nu yàlla ak yonent bi jox doy nanu danaa leen dolli yàlla ak yonent bi li nu jox doy noonu kon day mel ne yàlla daa joxe yonent bi joxe fun teg sëñ Tuubaa yàllaa tax foofu weesu nañ ko yontu yàlla Isa sunu boroom daf ne bu àllaaxira danaa ko wax ne ko ndax yow ñii di wax ne Maryama yàlla la yow it yàlla nga ndax yaa leen ko waxoon ci àddina yontu yàlla Isa ne ko man de lan ma digaloon laa leen wax dama leen yàlla kenn la na ngeen ko jaamu ba muy dundit loolu laa leen daa wax bi ma fa jëlee nag lañ wax sama gannaaw sama yoon nekku ci su la neexee nga buggal leen su la neexee nga bàyyi leen kon kooku dafa défendre boppam waaye défendreul aw nitam xëy bu ma ko de damay damay leeral leem Sëriñ Tuubaa moom bu ñu waxanteeg yàlla défendrul boppam défendrul it ay murit képp jullit ñëpp la défendre def na yow suma borom maa ngi lay ñaan fii ci addina nga may jullit ñëpp jàmm ba laaxira itam li ñuy wax ñaqare ak tiitaange nga nga xajjil leen ko ba nga xam ne laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun te it dama bëgg bakkaar yu bari yi ñuy def bu leen ko jàppee ndax ban bi nga leen bindee ban bi mooy sobe moo ñuy bakkaar waaye roo gi nga jëlee ci sa bopp moom laab na ci bokkaliwu la sëñ Abdou dama dama xamut gan xasida la dafa am ku ne shaxsun takannafahu suraya wastara fal jismu kuwina min xasiisi alqirmidi كان نشوءه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتسعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد loolu la sëñ Tuubaa wax dafa am ku ne nit yàlla da koo bind ci yaar ban bu jóge ci lu lu ñaaw rek lay def ndax day dellu ci cosaanam roogi bi yëkkatiku di def lu baax rek ndax bëgg a dellu ci boromam soo ko defee nit ki nag ne ci diggante bi lee di ko ñoddi lii di ko ñoddi moo tax Serigne Touba loolu la wax sunu borom ne ko bu leen jàppee seen bakkaar yi ndax yaa leen liggéeyee ñi nga xam ne euh, ban ak suuf bi mooy indi loolu waaye bokkali wuñ la kon nag mooy gi nga xam ne buñ la ko defee du la wàññi dara bu leen ko jàppee njëgal gi nga xam ne boo ko dencee kenn doo xam ne am nga ko may leen te sunu borom tabaraka wa taala sayidina isa bi mu layalee boppam la ko ca yàlla tegal da ko kon nag yaag sëw nit ginnaaw xam naa ne noonu rek la demee jéggal naa leen te dëggin di tabbi àjjana kon nag sëriñ Tuubaa bi nga xam ne ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñëpp la aar layal leen yaakaar naa ne fu ñu fayekee danañ ko fay dëkkam bi di Tuubaa itam dafa am téere bu ñu wax al bidaya wa nihaya abul fida ibnu kathir moo ko def al jusu thani phase bi nga xam ne juróom-ñaar fukk juróom-ñett la lii bay wax cala ne yonte yàlla isa dafa laaj si yàlla ne ko luy tuuba mu ne ko tuuba garab la boo xam ne maa ko jëmbatal sama bopp léppam ajjana la xetam day mel ne misk càkkaam mel na jinjeer côté nan dootoo marati mukk eh, yontu yàlla insaan ne ko damaa bëgg nga nandal mu mu ne ko mënta ne dafa am yonante boo xam ne kenn du ko te jëkka naan am waa këram ñoo xam ne kenn du leen jëkka naan yow nag duma la rey dama lay yéegal ci man su ma demee ba ci mujjug jamono ma delloo si la addina ndax nga dajeeg lenn ci waa kër uh, yonante boobu ma lay wax su boobaa da nga gis ñoom kii man da nga leen dimbali ci noonu yàlla yéen ñuy dajal ci jamono nga xeex ba ñuy xeex ak ñoom waxtu woo nag bu boobaa ñooña da leen ndax dañoo weesu foofu tayit yonent du dikk seen gannaaw gannaaw gannaaw seenub yonent mu ne ko dama bëgg nga mosal ma tuuti ci ñoom mu ne ko de xeet lañu woo xam ne seen kilifa ahmadu la tudd ñu am yar la ñuy doon ñu teey la ñuy doon waaye man yàlla damaa yëkkati seen i daraja ba dañoo yam ak anbiya ay ay ay daraja danaa leen tàbbal àjjana ndax dañoo fonk di laa ilaha illa dañ koo fonk ca laa leen di tàbbalee àjjana boo demee àjjana ñoo cay gën a bari loolu mooy noonu mu am nag loo xam ne danoo waral delloo Serigne Touba njukkal ndax dafa am lum nu defal dafa wax ne yéen sama ñoñ bu leen jàq bu leen tiit ci àddina ci àllaaxira danaa leen defal loo xam ne buur du leen gën a rafet lu muy sol buur du leen gën a neex lu muy lekk buur du leen gën a rafet fu muy dëkk te kuy rey buur tegi leen loolu nag dafa am njukka ko war a delloo mooy bañ koo boo booleeg dara dara dara dara dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu maa ngi lay nuyu nuyoo boo xam ne dama ci fàttaliwaale li nga xam ne moo jaar sama diggante ak yow te muy lu yàgg ba ñu ay gone bokk nañu ci benn lal at loolu defe naa lu rëy la bokk nañu ci benn néeg ñaari at bokk di jàng di bokk lu ñuy bëgg di bokk lu ñuy bañ lenn rek laa xam ne metti woon na mooy boole woon nga ci di ma jàngal rëbb te man damaa ragal fétal maa ngi fàttaliku ñaari balaa laa sa taal ca ba nga may jàngal fétal benn bi dama bëggoon a xam bal bi nu muy deme yëm a diir tax li may diir يجب ان يكون هناك مجال للمجال للمجال للمجال للمجال للمجال للمجال للمجال للمجال للمجال ba ko sunu borom ne sana suddu adudaka bi akhi te loolu waxoon nañu ko sayidina Moussa wante Serigne Ibra Faty ak Serigne Touba seen diggante benn diggante musu musta mel noonu royukaay la dafa gëm Serigne Touba bëgg ko ragal ko doyloo ko musu ko diingat musta wer werante bi nga xamee ne sëriñ bi yëg na ne tubaab yi ñu ngi koy woo te fekk booba ñiy rambaaj ñoo fexe ba convocation yi ñu yónni sëriñ bi ñu denc di ko sëriñ bi xel ma ci mu ne ko demal laaj yi ba xam loolu nu mu dem am ci bokk yi ak taalibe yi ñu ko xelal moom maam Thierno ne ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon niti àddina fexe woon ba am col gu rafet goo xam ne dana dëppook ñoom day baaxoon na ci ndekete sëriñ daa nga koy yëg fi mu ko bi mu lijjantee ne moom maam Thierno bëggul dara waaye fexe na ba àbb bi ko sëriñ bi yëgee mu woo ko mu ñëw mu ne ko yëg naa li ngay fexe waaye boo demee sa col gii nga daa nekkeek man muy ay sagar boo demee sol ko ci laa gis tàggat bi may tàggat tuba bi te nu ko sëriñ tuba waxee woon ba mu àggee moom jéemu te def dara dafa jawale rek ka gouverneur dëcc bi mu àggee mu taxaw ci buntu bi fekk gouverneur une jot na muy signé ay courrier volontaire am dafa féete buntu mu seen garde bi di waxante ak maam Thierno ñu xëccoo mu woo garde bi mu ñëw mu ne ko kooku ku mu ne ko kooku de dafa wax ne mooy rakk ci Serigne Touba. ginnaaw nga xam ne nag ñoom booba mbirum sëriñ bi rëy na ci ñoom mu dal ko ne wutal ko fu mu nekk bu ma gontee woo yàqkat yi dikk jéem a def lu ne waaye gouverneur def leen ne kii ak ak sagaram yi mu sol lu mu wax dëgg ndax gisuma lu muy ragale ci ci àddina wala lu muy dabooti ci àddina kon lu mu wax dëgg nga gis li sëriñ bi ne woon sagar yi ci laa def tagg bu sol woon ba jëkk rek lu mu wax duñu ko gëm mu deseti leneen te loolu des koo war a wax muy soxna Fatou Issa diggam ak sëñ Touba man de li ma xam ci histoire u Serigne Touba mooy ki gën a gëm Serigne Touba ci àddina mooy soxna Fatou Issa Diop na mu sëriñ bi na mu jàppe sëriñ bi loolu lépp ci ngëm ji lay wax sëriñ bi dafa am juróomi at yoo xam ne kenn xamul ci moom dara tubaab yi bind benn lettre def ca ne sëriñ bi nekkatul ci àddina yónnee ko Maam Mor Jaara fekk booba maam Thierno mu ngi ci Daaru Manaan fi ko Serigne Touba bàyyi euh, sëñ Mor Diarra di bàggante diggante Mbacke ak Daaru Manaan fekk soxna Fatou sa mag bi kuyti kuyti yi bare mu ñëw ne maam Thierno man nga damaa gis fan yi yépp ngeen di gisee ko bàyyi te man ko ma li ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waaye sa xarit ba sa doom ja moom lañ wax ne moo fi nekkatu ta weddi ndax monsieur sutu yóbbu kenn ñoom tubaab yi mu dellu siwaat te dund gu ne dafa am fu mu yem kon warees naa mën a gëm booba loola waaye ba mu des soxna Fatou ñu bari ci kilifa yi ngeen di xibaar ba bay tàmbalee sàkk pexe ñuy tëdd nañ seen jë seeni moroom wàññi leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne maam Thierno fii ne gëm nga xibaar bi mu ne ko waaw mu ne ko bett nga ma de sa mag jooju nga xam ne siburu si ko daa dal daf koo dal bis te siburu soosu ci la Serigne Touba taalifoon matlabu shifa yi bi muy def matlabu shifa yi nite ne fi wetam muy wax kooka di bind waaye boobu sëriñ bi tawat ji nekk na ba mënatuta yor xalima ak daal moo tax mu naan wa ashtaki ilayhi ma min ad darar qad massani xatta araani muxtabar booba nee na mi ngi ci waaj a ginnaaw bi nee na mu wax ma ni ma toggal ma laaxub jër soxna Fatou Issa mooy wax bi mu ko defaralee sëriñ bi sëriñ bi bi ci jëfandikoo amuk tal amuk dal tani nee na mu ne ma waxal loo bëgg ma defal la mu ma ne ko man bàmmeel laa ragal mu ne ma xanaa su ma la ci dugalalee sama bopp danga ca ñeme mu ne ko waaw mu ne ko waaw die bu ma di xoolee te moom lu mu wax def ko ñu naan leen génn na àddina ngeen di ko gëm waxuñu dëgg mu ne ko te boo ko sakkoo gis ci guddi tëj yi da nga ko gis keroog ña fekk jotaay ba wax nañu ne dégg nañu maam teer na di wax ak sëriñ loolay sëriñ Tuubaa nekk Gabon ba ñibbi si 1902 ñu exilé ko Mauritanie ba 1907 mu soog a dem téyeen sëriñ bi soog a yónnee woolu soxna Fatou Issa ba mu déggee woote bi daf ne damay faatu ji rek la mu waxoon la bëgg a def bi mu dikkee yàlla dogal la xew-xew sëriñ bi moo jógal boppam toppatoo bi nga xamee ne dugal nañu ko ci biir sëriñ bi dane na ma ñëpp dang moo na si moo soxna si mu ne leen su ngeen séenee ma ci sama loxo ngeen dellu si waat mu def la mu waxoon loola soboon kon nag xibaar bi ñëpp gëm te ku gëmit moo gën a gëm sëñ Tuubaa foofu laa ko loolu mooy maam Thierno Birahim sunu maam sunu royukaay ak soxna su tedd soosu di soxna Faati Isa Jóob mu ñëw ci sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nag buñ ci waxtaan دون وقتان في الإسلام نوغي وقتان في لووت لسرين توبا أك في بيك وإلا يما لسرين توبا نيب لولا دون كبا نخ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجه والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات سرين توبا نينا لب لو يالا سانتانا تي ما ديكو ديفون دو جيجين مان دوما يام فوف نيي ما لي ييب غور جيجين فيام تي لولاي الاسلام فوفي نك لو سرين توبا تاغو اك نيت نيو سي فيغا خامني رجالون لو خاني بوكو سونو بروم دي واخ دانان رجال danaan لا سيغ توبا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه المجاهدون في سبيل الله دا فام لو جيجين منو غوني منو فوفو فلا سيغ توبا تامبالي دي ليغيال يالا مريد يتم تانوك يالا لاي في بير الاسلام ndax ji ñu koy tànne ci gerte gi ñu xol waye buuse dafa ne xar ne fa lu sax ne fa lépp ne fa waaye jiwu nag jiwu yàlla ci l'islam ñooy ñooy ñooy mourid motax mu ne man yartadid minkum an diinihi fa sawfa yati allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala almuminina aizzatin ala alkafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لولو نك ليكوي ماي موي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لولو موي تالبي dañuy nit ñu bëgg yàlla yàlla bëgg leen yàlla jaral leen lu ne lu ne di ko def te yàlla tax tey duñ ca ragal coow duñ ca ragal mbam ndax murit du ragal coow coow koy yëg fu coow amee yoon yokk kon loolu mooy Serigne Touba loolu mooy taalibe ñi nga xam ne nag dañu leen di tudd di tudd Serigne Touba dañoo war waxtu wu nekk di ko delloo njukkal am na loo xam ne de xel war na cee dem nga am lépp ba ku ko mën a am day ñëw ñaan la ko yalwaan la ko nga sarax ko ci nga sarax nit mu duy ci ay bàttoom woon la gannaaw nga gis muy fees nga fàtti ne yaa ko ko sarax toppaat ci di ko yalwaanaat te la nga ko sarax woon war nañ koy wattandiku wasalaamu aleykum wa rahmatullah